bàyyi ko. yu mel noonu day tax suñu perception justice bi day xaw dee waax. mais mais Barthélémy Dias aussi xëy na euh, yëf yi dafa yàgg ba da koy mujj énervé parce que bu ci wax dañ koy sentir mais aussi am na ay kàddu yu muy tenir euh, parce que tey jii nii bu ko euh, justice condamné pour mu jox ndàmpaay famille famille Ndiaga Diouf mu lànk tëdd ci ne du ne du ko def bay sax jàpp ne voilà la famille d'un nervi dañu mën attenter à sa vie est-ce qu'il a besoin ko fayu ko xamuñ fooy la xam lan moo xewoon en 2011 la vérité c'est que am na pick-up yu ñëw def ay sàmba sulaabaal ñu ne nerf bi la ñu leen mhm. ah, ay gros bras yi mel noonu ab ay armes ñëw ci institution municipale fekk fa maire di ko budu xatal di ko tiital di ko intimider loolu mooy dëgg bi te ñooñu xam nañ fu ñu jógee woon ñu ngi jege woon siège parti au pouvoir à l'époque PDS loolu mooy dëgg bi dafa xew xew fa. Mhm. donc loolu la ñu war a dugg baaraam d'abord maintenant Barthélémy ci boppam bi ñu ko attee moom moo ne at atte bi ànduma ci. doyuma mhm. damay laabal sama honneur ndax man rey ma Ndiaga Diouf il a dit il connaît à clamer son innocence l'appel l'a débouté mu def pourvoi en cassation mais ba mu ko defee soxla ko atte ko chaque fois yaa ko wax léegi bu ñu jublee élection rek la ñu yëngal dossier bi mu ne mu mën ne am lu muy nuru. loolu nag ça peut agacer les citoyens qui pensent qu'il a un timing judiciaire qui n'est pas conforme à ce qui devrait être Sénégal c'est problème que nous avons un problème de timing judiciaire mhm. am na baax démb benn journal ma la témoin mu bind ping pong judiciaire ping pong judiciaire c'est parce que léegi day mel ni que dossiers yi dañu leen di génne en fonction